Sissoko Kya Tabasia ma bàyyi la nga recevoir leen Aïssatou parce que c'est des invités pour ñëw waxtaanee li nga xam ne moom la ñuy waajal. moi c'est un plaisir d'avoir Ablaye aujourd'hui sur le plateau de Yeewu Leen Ablaye maa ngi lay dalal euh, je vous dis bonjour à vous aussi euh, tey nag Ablaye dafa ñëw euh, moom ak groupe bi ñuy wax Constantinople ak ki nga xamante ne mooy Kya Tabasia defoon nañu bu yàggul loolu jardin migrateur donc dem ngeen migré ji ba ñëw. ngeen ñëw indil ñu traversé Ablaye lan la ñuy traversé.

Bonjour, bonjour Kia. Voilà, bonjour, ça me fait plaisir d'être là aussi. Et ça fait quoi cette traversée euh, ben, ça, ça, touche le cœur en fait. Euh, moi, je suis très heureux de revenir ici Sénégal. Euh, ça me, ça me vraiment euh, comme, comme en fait, on traverse un peu. On fait beaucoup de concerts ensemble à travers le monde. Mhm. donc, beaucoup, de voyages, beaucoup de mhm. traversées des lieux. des mémoires aussi. C'est des musiques qu'on revisite, des musiques qui viennent d'ailleurs, des musiques plus anciennes, des fois qu'on revisite. Donc euh, tout ça, fait beaucoup de, de, de voyages et de périples. Quand la Cora et le Sétar se croisent, ça peut donner que ces magnifiques choses alors. Oui, effectivement, en fait, c'est un, un, une rencontre entre ces deux instruments euh, qui est extraordinaire à la base pour nous parce que bon, les deux instruments, on, on dirait qu'ils étaient faits pour se rencontrer, même s'ils viennent de très loin. Le, le setar, l'instrument que je joue, vient d'Iran, de la Perse. Mm -hmm. Et, bon, la, la kora, vous la connaissez bien ici, donc euh, ça vient de chez vous. Donc euh, ces, ces, deux instruments se rencontrent, euh, à, à, la fois c'est les sonorités de ces instruments que, qui se rencontrent, mm -hmm. mais c'est aussi euh, très souvent les, les, les, musiciens, les hommes qui sont derrière les instruments, qui font résonner ces instruments-là qui se rencontrent aussi. Tout à fait. Donc euh, voilà. Euh, Ablay euh, traversé ngeen di pare benn tournée boo xamante ne dingeen ko amal ci institut français bu Mauritanie euh, bu sene bu Dakar ak yooyu yëpp tey ji bi ngeen defee jardin migrateur ba pare est-ce que da nga gis ne dafa am loon di incarner par rapport ak li ngeen di jox est-ce que vous incarnez la parole du monde à travers seen seen collaboration bi. Euh, je sais pas <laughs> mais yaakaar naa ku nekk ci fii ci àdduna rek ñun ñëpp dañu am mission. tout à fait. Euh, te mission bi mooy yeete maanaam li ñuy def ku nekk gis ci sa bopp yow mi koy maanaam yow yow mi ci joué déjà nga gis ci sa bopp ki lay seetaan wala ki lay déglu tamit mën ci gis boppam yëg ci boppam. et donc comme tout est euh, en fait euh, yëpp jàll la rek traversé tu sais dans ce monde là nous tous on est on fait traverser voilà. Mm-hmm. il est important que ñun par exemple musique bi ñuy def maanaam ci ci fi ñu cosaanoo bu ñu amee possibilité wala chance yi dajeeg ñu mel ni ñeneen tamit ñuy yëngu ci ñun ñuy yëngu parce qu'en fait moom aussi il un instrument le euh, sitar qui a des milliers d'années c'est ça des milliers d'années qui est peu connu waaw non moo gën et même le riti j'ai l'impression que je sais pas Riti wala xalam. xalam oui. je pense. c'est donc ñun la euh, Kora donc il faut, faut au treizième siècle par rapport ouais. à quatre mille ans ou trois mille ans donc mhm. par rapport à cet instrument donc du Kora xale la quoi li liir la sax quoi. Mhm. donc comme ñun am nañ chance tamit euh, maanaam ñu génn ñuy découvrir maanaam li ñuy def ñun tamit. dañu bëgg maanaam tamit ñeneen ñi tamit découvrir tamit li nga xam ne muy jóge feneen donc moo ñuy gën a dimbali tamit ci ci suñu liggéey bi ñuy def waaw moo ñuy gën a dimbali suñu liggéey léegi est-ce que euh, tey jii euh, vous di que vous traversez le temps vous traversez les airs vous traversez les les, euh, tey lan ngay traverser fi mu toll nii. ah tey damay sant waaw damay damay damay sant parce que. Euh, amuma ñaari at ëpp naa fukki at yi mu ne rek fii damay te te àdduna dafa am ñu ñuy daw daw bu gaaw mhm. am ñuy daw daw bu ndànk mhm. am ñuy jël am ñuy temp temp mhm. parce que loolu yëpp dañu bëgg rek parce que ki jóge fii di daw jóge fii dem fële bu gaawee bu yeggee du am lu mu nettali talu dara dul daw deful attention ci li mu romb et c'est c'est donc ñun euh, am na chance bi ba ñeneen dañu tayal ñu ne waa ba tey baax na ñu dañu tayal <laughs> dañ ne bu yeggee baax na bu yeggul tamit ñu xam ne suñu borom loolu loolu la dogal quoi mais dañu bëgg bu ñu yeggee rek am lu ñu nettali mm-hmm. parce que ci li ñuy nettali ci la nit di mën a jëfandikoo voilà parce que dañ ne àdduna seetu la mm-hmm. boo defee lu baax nga gis ko boo mm-hmm. defee lu baax tout à fait gis nañ seen bopp. Mhm. wala gis nañ seen su ngeen demee ba yegg expérience bi moo def nar a def différence. exactement <laughs> super non Ablaye di nga yegg incha allah ndax li ngay yaa ngi temp <laughs> euh, di teg euh, li ngay def yëpp yaa ngi koy teg si yoon moi je t'adore et voilà et j'adore ce euh, léegi nag affaire bi na lay demee tournée bi ce sera. juste gis naa la Dakar Mauritanie mais après qu'est-ce que vous comptez faire après. oui je vais tu veux que je te, je te laisse parler. comme ça comment, va comment, comment va, comment va se passer la, la, la, la tournée comment ça va se passer. Euh, en fait, la tournée, on commence, je crois, demain soir avec un concert à Saint-Louis. Après ça, on revient à Dakar pour un concert euh, samedi soir à Dakar. Et euh, après ça, ensuite, euh, ça suit en Mauritanie. Et de, euh, après, on revient à Dakar, on a un concert euh, à l'ambassade du Canada. Euh, qui nous accueille pour un concert euh, euh, la, la, semaine prochaine. Et ensuite, la tournée se poursuit en Algérie, à Alger, et ensuite en France. On a des concerts en France et vous savez, on est, on est pas mal en concert tout, en pour les, les, les, deux prochaines années, on a des dates euh, un peu partout dans le monde. Euh, on a bah, ils des... traversent le monde ah alors. Bah oui, ils traversent. Oui, oui, non, vrai, oui. On comprend maintenant. <laughs> C'est super en tout cas de, de pouvoir euh, euh, tourner comme ça, faire découvrir sa musique un petit peu partout et que les gens puissent profiter de votre expérience, de ce que vous avez euh, parcouru jusqu'ici. C'est génial, nous on aime bien. Et est-ce qu'on peut les suivre à Essatou Bah oui. Lors des tournées. Bah oui, si vous voulez. Partout, hein. Moi, j'aurais bien aimé prendre ma, mon, ma, ma, petite besace. Je dis même pas mon sac, ma petite besace. Et si, je, je, pourrais suivre Ablaï euh, autour, voilà. <laughs> À travers le monde. Partout, partout, super, à, travers, à travers le monde. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, Ablaï, euh, kon nag euh, tournée bi ñu nar ko amal noonu léegi projet yi lan la ak ndax am nga yeneen collaboration yoo nar a def lan ngay lan ngay préparé waaw parce que bi ci bi ci gënoon euh, am am solo mooy déjà mooy bi ñuy bi ñuy def nii. Euh, parce que ñoom recevoir nañ ma seen dëkk. Mhm. ñoom ils habitent à Montréal c'est d'origine iranienne il y a des parce qu'il y a d'autres musiciens aussi. Mhm. un autre qui joue du viol de gambe et percussion aussi on est quatre. gis naa ne da ngeen di revisiter répertoire yu bëri ay ay Pérou ay Mexique ak Espagne. c'est magnifique voilà. moi je trouve que ces musiques sont belles et c'est ñoom seen ay instruments. dafa am loo xamante ne daf koy dégager daal c'est de l'amour c'est de la passion tu vois c'est c'est magnifique. Exactement, mhm. voilà exactement. mais c'est c'est vraiment. c'est c'est un grand monsieur vraiment dama bëgg Sénégal découvrir kii Atabassi vraiment ku ku baax la ku ku ku moom tamit kuy défendre maanaam cosaanam la. Mhm. et c'est très important aussi waaw. c'est très mhm. très important et puis aussi ben euh, nu benn genre conservatoire aussi euh, nu ñu Euh, musique du monde benn école au Canada Montréal donc ñu bari ñu ciy jàng. di jàng ay kora ak yeneen instruments aussi donc il essaie vraiment de travailler sur le, le, le les instruments traditionnels qui viennent d'Afrique et d'ailleurs. Mm, tout à fait mais da nga wax lu am solo da nga ne dafay jaay. cosaanam lu mu am mais je trouve que c'est magnifique parce que yow it cosaan bi da nga koy jaay tey defe naa ne moo indi euh, ngay dem fu nekk di def ay lëkkaloo yoo xamante ne dañuy xam lan mooy kora lan mooy cosaanu Sénégal mm-hmm. muy riiti muy xalam bu nekk loo xamante ne moom la ñu moom en fait te mooy li nga xamante ne moo ñuy jaay moo ñuy wone te richesse musicale bu ñu am li may wax chaque fois c'est c'est c'est extraordinaire muy euh, alpulaar yi muy mandeng yi muy soose yi mm-hmm. et moi je j'appelle les musiciens à se servir de ces instruments parce que mm-hmm. déjà li may joxe rek ci ci son c'est c'est c'est magnifique. daf lay jox ay pression ba pare je pense que je pense que soo génnee fii sa différence nga mun a wane. parce que su fekkente ne génn nga tey et que ngay wan nit ki moom li mu am déjà. xam naa danaan kii sax daf may fawee wala qu'est-ce qui se passe mais boo ñëwee nga présenté ko beneen. Euh, affaire boo xamante ne yow sa dëkk la am ça t'est propre c'est super et ça permet benn brassage culturel boo xamante ne nous on aime. on va on va les suivre. bah oui on va les suivre moi j'aimerais juste poser une petite question à Kia. est-ce que vous vous aimeriez vous essayer au mbalax. Ça vous dirait quelque chose Malar Oui. <laughs> les percussions Bah oui, les percussions, mais à la ah, sénégalaise. Oui, euh, ben oui, avec plaisir, oui, oui, oui. Euh, j'aimerais bien voir ça. Oui, j'aimerais bien voir. Oui, oui, oui. En fait, les, durant la tournée, on a, on a, quelques concerts, mais aussi, ça me tenait à cœur d'aller rencontrer aussi d'autres musiciens. Donc, voilà. avec Ablay, on a organisé ça. Ah Et aussi euh, d'aller dans les universités, dans les écoles, rencontrer les, rencontrer les gens, quoi. Mm -hmm. Pas juste faire un concert, avoir le public devant nous, bien mais sûr. aller vraiment à la rencontre des gens ouais, d'ici. Donc, euh, on a organisé ouais. Euh, plusieurs rencontres dans différentes écoles. Mm-hmm. D'ailleurs, on va à l'école de Cora d'Ablay à Saint-Louis. euh, à l'université à Saint-Louis, ouais. ici à l'université des Arts, je crois, à, à Dakar. Mm -hmm. Donc plusieurs rencontres, École des Arts. Donc plusieurs rencontres aussi avec euh, les, les, gens, les musiciens d'ici. Euh, pour euh, L'idée, c'est de faire ces échanges, mm -hmm. de mhm. faire ces de rencontres. Faire de nouvelles important, et, euh, la découverte et voilà, avec Ablaï aussi, quand on voyage un peu partout dans le monde, on fait ça, on va à la rencontre des gens. Ablaï, la dernière question pour vous. école de Korabi, ça avance Euh, yow laay xaar pour nga ñëw jàng Kora. Ah. non mais man xam nga passé daf ma rëcc leçon boobu mais bii pas moom damay ñëw damay def samay leçon d' accord ça avec plaisir Ablaye et merci beaucoup merci beaucoup d' être venu ici sur le plateau de Yeewu Leen merci à vous donc Aïssatou le temps ngay euh, présenter livre bi damay jël kenn rek juste au téléphone ñu mayaat ko beneen enveloppe su ko defee euh, nga ñëw présenter ñu le livre du jour bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi ci numéro yi nga xamante ne moom mooy jàll si suuf écran bi ñu jël la nga wax ñu ban région moo la gën a inspiré wootee ñu ubbi rek loo fekk yaa ko moom allo allo wuyu leen ma ci teraanga Sénégal bi li fi nekk dañ koy maye de <laughs> allo donc le temps Aïssatou di présenter livre am on va prendre donc profitez-en euh, pour woote Aïssatou ban livre nga indi tey et ça parle de quoi. tey c'est c'est c'est un écrivain qui s'appelle Jules Gassot livre bi mi ngi tudd La nuit ne dure pas c'est un, c'est un monsieur qui s'appelle Paul Broca. Mm-hmm. il a 40 ans il est divorcé et dafa euh, day jéema moom it traversé li mu traversé ba pare <laughs> en fait li mu jot a traversé ba pare moom lay dundaat et et dans le livre il se pose beaucoup de questions et c'est à travers un dîner familial dafa nekk dîner boo xamante ne Noël la am mhm. il s'est dit que euh, mook yaay ji amuñu woon ay ay yenn affinité yi et bi mu amee divorce beeg yooyu yëpp il s'est dit je vais aller passer mon dîner de Noël chez ma maman même mhm. pour jéem a dëkkaliwaat yenn mbir yi et en même temps il va aller voir sa sœur qui est mariée et qui a des enfants et il se pose beaucoup de questions il se dit euh, j'ai traversé plein de choses est-ce que échec tey ci àdduna euh, bu ko yàlla mënoon fëgg tey boo amee benn échec boo mënti doon bu ko yàlla mënoon fëgg ba mu mel ne pëndax cendre ba mu mel na euh, boo boyalee ba pare ba mu mel no cendre. Euh, doom ba mu mel na doom. est-ce que tey échec euh, lu mu métti métti mën nañu jékki-jékki ñu fëgg suñu bopp mu deñ quoi. Mm-hmm. et à travers tout ça il va revoir sa famille pour essayer de se reconstruire. et pour mm-hmm. essayer de reconstruire le lien familial. Mm-hmm. parce que angoisse a peur dafa nekk ci moom. il a besoin de socle pour nekkaat. c'est un livre boo xamante ne yaakaar naa ne soo ko lire ba pare tu vas te poser beaucoup de questions. par rapport à toi-même. sérieux je peux Euh, non elle nous donne jamais les livres. <laughs> si tu veux. jamais elle dit je bu émission bi pare day daw. yóbbu ko nii lay jaar en tout cas merci beaucoup. Aïssatou c'est ma richesse à moi tu sais moi je dis que c'est pas du xaalis. Mhm. mais ma richesse c'est ça. je vais venir damay ñëw sa kër dévaliser ko non non non ma wut ma la jëndal may la. merci beaucoup en tout cas pour euh, invité yi nga xamante ne indil nga leen ñu ci plateau bi ñu waxtaanee seen projet bu am solo bi nga xamante ne nous on a juste envie de les suivre à travers le monde. et puis ñi koy euh, découvrir ñëw fekkee événement yi ñu nar am chance la ñuy doon agenda culturel. agenda culturel le 17 vous êtes à l'Institut waaw incha allah de Saint-Louis incha allah le 18 ngeen nekk ngeen nekk Dakar voilà donc le 17 Ablaye ak groupe Constantinople dañu nekk institut français de Saint-Louis le 18 ñu nekk institut français de Dakar yeneen yi si des euh, dina leen ko wax après mais le 18 janvier dafa am benn arbre de Noël boo xamante ne képp ku yëngu ci euh, secteur culturel bi euh, ñoo fa nekk donc dañuy sargal seen ay doom journaliste culturel yeeg ñëpp dina am ay atelier de slam dina am ay travaux manuels maquillage dañ leen defal ay lépp dina am fecc dina am lecture bu quinze heures jotee nag si lañ jël cadeau yi distribuer ko jox ko euh, doomu ñi nga xamante ne ñoo fa donc ce sera le 18 janvier foofu la ci monument de la renaissance. merci beaucoup Aïssatou pour euh, Yeewu Culture bi donc euh, rendez-vous mardi pour yeneen i programme en tout cas c'était un plaisir donc ñu jël ki nekk ci ligne bi maa leen ko promettre woon Aïssatou buy paree ma leen di jël <laughs> jox leen li nga xamante ne moom moo nekk fii ci suñu biir région yi allo.